waaw en fait euh, depuis que Macky Sall a décidé sa décision criminelle euh, ñun tooguñu ba ba léegi ñu ngi wax ak sénégalais yu nekk ci diaspora bi mais en même temps à travers le, les réseaux sociaux ñu ngi wax ak sénégalais yi au niveau du Sénégal pour que ni ñuy génn wan Macky Sall enfin que moom moomul Sénégal at the end of the day euh, sénégalais yi ñoo ko choisir donte man bokkuma ci ñooñu parce que dama mës a xam ni dama mës a teel a teel gis ne Macky Sall mii ab euh, du du du gor. Parce que à travers les Wad, j'ai compris à travers cela que le gars-là, c'est pas quelqu'un qui a wolo. Mais comme Sénégalais, wolo l'enko, ben yutako, ben yutako démocratiquement, wax dëgg yàlla mu génn euh, ba mu xaar ba tey di euh, man mi mu xaar ba heure am génnam jot muy bañ na moom du dem parce que juste il a peur que li mu jot a luubal xa sunu alal ji mu jot a luubal wala crime yi ñu jot a def moom ak ak ak ñoñam bañ na ni bu demee après ça va mu bëgg a toog fii forcer ñu boppam. loolu nag ñun bëgguñu loolu parce que xam nañ ni Macky il n'a pas envie de partir te bu fi toogee bu ñu ko may occasion boobu rek y aura plus d'élection au Sénégal septembre il va dissoudre l'Assemblée nationale bu dissoudre l'Assemblée nationale il va être président à vie te loolu Sénégal mérité loolu wax dëgg yàlla moo tax ñuy ñëw fii wax sénégalais ñu gën en masse ñoo wan le monde en que Macky Sall c'est un terroriste c'est un dictateur loolu moo tax ñëw fi tey. waaw euh, ñun ñun on depuis que depuis que ñu sosee suñu organisation bi euh, lépp loo xam ne moo ñu war sur le sur le côté administratif ñu ngi koy def. lépp loo ma xam ne moo ñu war sur le terrain ñu ngi koy def lépp loo xam ne moo ñu war sur le côté des autorités ñu ngi koy def bind nañ euh, mémorandum jox ko euh, euh, le représentant de la France aux Nations Unies ñu déposé ko on a contacté le Sénat contacté nañ le président des sénateurs le leader des sénateurs mooy Chuck Schumer contacté nañ son adjoint mu nekk Christian Gillibrand contact démb rek maa ngi woon en contact avec euh, le city council koo xam ne moo géré district Harlem bi pour que en même temps ñoom ñëpp ñu ah, ah, boole seen doole boole seen synergie pour que ñu mën a influence si Macky mu arrêté li muy def te ñu ngi gis ne loolu mu ngi joxe fruit parce que contact yooyu ñu def noonu tax na ba ñoom ñu xam li xew Sénégal tax na ñoom information yi ñu soxla si ñun ñu laaj ñu ko ñu jox ko loolu la ñu utiliser pour def influence pour pour ne Macky Sall par exemple keroog bi ñu ko ne na delloo parce que li ñu comme li ñu doon def dem ci guddi ak city bi c'est pour que kooku boole ñu ak euh, city euh, ak assemblée assemblée générale bi pour que ñoo ñu jàppale ñu boole ñu ak le Sénat pour que doole euh, état fédéral américain bi ñu mun ci njër sukkandiku pour ñu wax Macky Sall mu arrêté dictature am pour mu ñu wan Macky Sall ni que la dictature loolu la le monde entier veut te loolu moo ko tax moom mu nekk président moom mënuñu ko fal par par démocratie mënuñu ko fal par démocratie moom mu bëgg ñu imposer la dictature ñu ngi def lu ñu mën sunu côté que ce soit sur le terrain que ce soit sur le côté des autorités américaines ñu ngi bind ay demande ñu ngi dem di rencontrer ñu ngi bind ay mémorandum donc ñu ngi ñaan yàlla loolu fruit bi mu commencé joxe fruit boobu gën a yokk ba Macky Sall abal ñu Sénégal incha allah. waaw en fet ñu ngi jokkoo ak quelques quelques ONG quelques mouvements au niveau du Sénégal ñi nga xam ne ne yàlla ñoo ñu jot a booleel mais comme ni nga ko xamee ñun Africa First organisation bu bees la mataguñ sa defaguñ sax un donc ci diggante bi. Euh, suñu xeex bi fii la gën a concentré wu parce que yàlla def nañ fii lañ nekk donc ñu ngi béy lu ñu mën fii fii fii organisation yi fi nekk yëpp ñu ngi en contact avec ñoom ñu ngi travaille en synergie avec ñoom même temps ñu ngi lëkkaloo ak ñu nekk Sénégal que ce soit des journalistes que ce soit des des mouvements te incha allah foofu lañ jëm lépp loo xam ne ne mu ngi représenté xeex ak ak yelleef Sénégal ñun bëgg nañ liggéey ak yow te ñu ngi ñaan yàlla képp ku jot ci interview bi te nga nekk ci domaine boobu nga jëm ñoo contacter Africa First lañ tudd New York nga jëm ñoo contacter comme ça ñu mën a dugg en contact on est prêt à travailler avec tout le monde képp koo xam ne yow injustice moo lay tax moom nga moo tax ngay xeex képp koo xam ne ak ak yelleef doomu aadama moo tax ngay xeex ñu ngi lay ñaan ñu boole suñu doole yi mun a xeexal Sénégal xeexal africain d'ailleurs j'en profite pour dire que nous sommes des panafricains gis nga sànq le représentant de la communauté malienne est venu pour jàppale ñu ci xeex bi le représentant de la communauté nigérienne daf ñuy ñëw dafa ñëw suñu xëy jàppale ñu les burkinabé kenn bàyyi leen si ginnaaw donc nous nous sommes un mouvement panafricain au-delà du Sénégal nous sommes des Sénégalais mais nous sommes des Africains te ñun dañu gëm moom moo moom mooy loo xam ne ne dina tax adduna bi respecté ñu donc lépp lu ñu mën ci ci waar woo ñu ñu ngi ci nekk donc que ce soit au Sénégal ou la sous képp koo xam ne ne suñu message egg na si yow jàppal ñu ngi lay jox loxo bëgg nañ liggéey ak yow incha allah. waaw en fait euh, en ce qui concerne les images Africa First ñu ngi am benn email. bu ñu tuddee sénégal feus 07 23 arobase gmail point sénégal comme on l'entend first f i r s t 07 23 arobase gmail point com képp koo xam ne am nga image loo xam ne jàpp nga ne suñ ko wanee ci àdduna bi dina dina tax ba nit ñi bàyyi ñu xel jàppale ñu ci xeex bi envoyé ñu image yi ci email boobu gis nga lii ay image image yu bees tàkk la dem ci guddi tëdduma ba 6 heures du matin liggéey naa ba 6 heures du matin di dajale image yi di dajale image yi di monter image yi nekk en téléphone ak ñi ma ko doon ñi mu nekkoon di monter image yi j'ai passé toute la nuit à travailler sur les images là parce que am na ñu nekk Sénégal ñoo xam ne ne ñoom ñoo jël aussi jàppale ma ci xeex bi di ma envoyé a image pour ma mun ko monter donc email bi ma leen jox ni encore une fois Sénégal first arobase gmail point com képp ku am image bu ñu mën a jàppale ci xeex bi envoyé ko foofu pour ñu mën a jàppalante xeex Macky Sall je vous en